jaxate ka bay heuri awaayi Sidi jahate. Sidi boo jàpp ba téeméer ba muy mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax ba léegi rek ñu ngi fii nga xam ne mooy Morolan taxaw ki nga xam ne mooy monsieur Yves Lamine Ciss maire de Morolan di maire boo xam ne comme ni ñu koy waxee rek nekk na maire boo xam ne yaakaar naa mbëri làmb yëpp am kontaan ci moom parce que mu ñu bokkul sax ci nga xam ne mooy euh, commune Morolan dañu gis ñu leen di jàppale ci seen i journée gis ñu leen di jàppale bu baax a baax bi drapeau Yves Lamine Ciss grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xam ni mooy building bu mu sante ak ki nga xam ne mooy caatu euh, limousine bu kaay baax dëkk fi nga xam ne mooy Morolan mais dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Yves rek mu woote bis euh, le 6 nan lañ koy waajale nan ngeen koy waajale mais wodo koyki ndutɗo ɓee mais woɗo koyki ndutɗo ɓee mana wonno bite bise beena suyen beera wal di ciin fii mais manam gaawee key wuugis ɗo yéen su defee Sidi Diakhaté cees Sidi daa type Lamba Thiès yetta so drapeau waaye drapeau boo nee di bëreera i koy ki ndut caatu limousine daay di bëree koy ki ndut mbër ana ñëwta sun fi aussi wonde ay bok bëree min dangi koy ki ndut ɓeep e yen ɓen mbëri yen yen sey ana a jamma yen wogis a jamma mais won chef de village sara maanaam yi koy génna uyi ndax lamba ɗi yin cosaan lamba ɗi yin kukoy ne wa yin ɓaxa bokna ɓele tamit président groupement ya mais ron dokro mais dok aussi conseiller a mais dok aussi président ASR a ɓeɓen a ɓoy zone mais dok aussi moduro modu zone manam ɓoyngida kuɗ sport aɗa mana wonne mbiti modu mobilise yi ima awa ɓoy ASC morlan 100% morna ndax yakkar bi yeen won pour bi boy 100% morna bisa bisoon kon gor gor li be yeen ben mbeur di yeen yeen participer yeen batti habla sidi jahate ndax sidi ye paquet de soto ɓeere de mairie geureum de de min ne ko onni sosfade ko laf ko onni sosfade ni yena pangdi ɓeera sañ fi mais surtout mana doog saafeera bajanni so mais mide da am daane don baato ne may doog saafeere ɓeet mobiliser bejen na meron wonna oyi dan penso comme ça vraiment bisa hen bisi yengi la ndaxte mana trop ci di jaar dari be en tout cas mana gërem di bu baaxa baax de min ko ondo sosfan di de min ko lafal la chat de min vraiment ko ondo sosfan bu baaxa baax kon bok méré gëm de bu baaxa baax era era era da ngeen jëf mbokk yi ba léegi rek signature contrat waye ku xam si di jaxate xam ko digënté mag ñi xam ni ñoy madar ñuy ay partenaire am diko ko jappalé ci bis mais dañuy bayyi nga xamni mo leen représenter rek mu sanni ay cadeau ci bis bi nuyu nañ la. sant euh, la señ bi bon di wax alhamdullilah rabbil alamin di ñaanal Sidi yalla naka yalla may ndam si bëssam bi muy dëgmal di la siis di nuyu euh, l'honorable monsieur le maire di maire de Malikonda di sant bu baax di gëreum askan bi nga xamantene ni ñom ñoo tanal seen bop produit bi di euh, Madar Nous est un produit leader dans le marché. Euh, nous euh, qualité et efficacité. vraiment nous euh, comparer mais jamais égalé. donc ce ko nous mobiliser pour nous l'homme le grand promoteur. Inshallah, si vous bi nga le 6. nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay xam si ni xam digganteem ak ki nga xam mooy Noura. Mhm. di produit boo xam ne Sénégal gépp dañ koy utiliser ñoo ngi lay nuyu. bi ñu ngi lay nuyu di la fay yow it di leen sargal seen bis bi di ñaan yàlla euh, jour bi ñu koy commencé tey. Mhm. yàlla eggale ko ci jàmm. Mhm. di ñaanal suñu promoteur Sidi Diakhaté. Sidi Diakhaté vraiment ñun ak ñoom depuis démb la tey soog a ñëw. Madaar kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal. ndax kër goo dem wala mbedd mooy dem sax di fa gis lu bokk ci produit daal vraiment Madaar ca kaw ca kanam di ñaan yàlla bis bi ñu commencé ko bisimilah rahmaani rahim egg ci alhamdulilah rabbil alamin ki ñu koy tuddee muy Yves Lamine Ciss di ñaan yàlla mu eggale ko ci jàmm. ca mbokk yi ba léegi rek drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi mais ñi taxawoon ñooy athlète ñu ja euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite jigéen ñi nga xam ni ñoo nekk fi nga xam ne mooy commune de Morolan ñu bàyyi mu sànni ay kàddu ci seen tur nuyu nañ laa Euh, maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu suñu honorable maire Yves Lamine Ciss di nuyu aussi monsieur Sidi Diakhaté euh, di ko remercier ci sargal bi mu ñu sargal nii ak drapeau bu mu tuddee suñu maire muy quatrième édition ñu koy fekkee di ko remercier ci loolu di woo waa ndax bés ba ñoom ñëpp ñu ñëw teewe bés bi ñëw accompagner suñu honorable maire Yves Lamine Ciss waaw bàyyiwuñu kenn ak ku mu mënti doon muy jeune socialist ak euh, sympathisant yëpp ñu ngi leen di woo ci bés ba muy le 6 bi ñu jëm nii le 6 euh, mais ñuy woo ñëpp daal ak jeunesse bi di woo sama association cent pour cent Morolan muy mbër yëpp di leen woo ñuy ñëw ñu accompagner monsieur le maire accompagner waale aussi suñu lutteur muy caatu euh, limousine ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ ci dañ ciy bë bëre aussi muy Bab Gaynde ak euh, faddam ñu ko naan caatu xay waaw may jaajëfal ñëpp di woote bés ba nañu tase fii ci buntu mairie bi bu kenn manqué di leen jaajëfal yéen ñëpp. aco ñu bàyyi la nga wax ci séeréer. ni mana woɗoh boye be mana woɗoh musa le maire mana woɗoh musa yasin, mana woɗoh sidi diahate mana woɗoh koyki morlan be le 6 mai yenda khu lamba yenda kun koyki morlan be victoire yi minti hen dugu jenga bidiri ko yaaye funo bokku yaya bappa sa lahayri ma bi di bab gayne ma ɗagi ɗo yena ɗagi mi adnoru ɗampi ɓiri sun te boy don don la joom don ñetal lipu ciatu limousine da la drapeau ganda fadam don turon bir yeron sun don sigil morlan don sigil monsieur le maire ma dang don baxal le 6 mai victoire ren victoire boy morlan be so si pa ku nek mis ɓakkude ya fi yaafinana don bal sa ak merci beaucoup ndé Bab Gaynde ak Mama Lamine numéro 2 mais bala ñoo sori dañuy bay ki nga xamni moy Bab Gaynde mu dala adversaire am Bab nuyu nañu wa fayna naa leen buñu santé yalla sante ci Mariam mu sell di né alléluia alléluia di santé sama yaay bu baax di ñaanal sama pap fu mu teulé yalla na suuf oyof ci kawam xam nga di ma Mama daal fii moral ñu ñoo koy dalal le six buñ buñ xama mu dalal ñu ñu duma ko daan ko wóor na yàlla. Mama Lamine bëgg nañ la. maa lay ziar Kara ginnaaw bi sant yàlla julli ci rent bi di sant suñu ñaari waajur di sant staff bi ñu àndal lépp di bëgg sama gaay ma àndal lépp di ko nuyu mu adversaire ah. comme fi dëkkam la di ko wax mu dalal ma su ma ñëwee fee ma dalal ko duma ko daan ko. le 6 le 6 allah. Ah. loolu ko ñëwal ma duma la daan la du yow ma xam naa ne. aja ñu bàyyi nga woote waale kon ñu lay. waaw di sant yàlla julli jërënt bi sant sama ñaar waajur di bëgg sama gaa yëpp di bëgg waa écurie Landi jàmm gépp waaw su ma limee xaale daanaka lim naa ñëpp su ma limee la drago daanaka lim naa mbëri fa ne yëpp di bëgg waat sama mafia bi mafia Mama Lamine fan si club Mama Lamine bi waa gàdd ci kanam waa Touba Toul monsieur le maire Ahmed Dieye moom jàpp na si béy bu baax de moom suñu xel dal na incha allah Mama Sall Bab Mbeng sama mafia bi Pathé Sita alliance Cheikh Góoroon Laasin la sandeer di bëggee sama gaay bi ñoom xaali ñoom la sa ñoom fils de Landing di bëggee ñëpp di leen ziar di ko nuyu moom aja ñu bàyyi nga woote ne ko mu gërëm woote gërëm jour gërëm le 6 maay toog si plateau maay wax maay diriger wooteel lamba ji maay xale maa munta maa ëpp doole nag billaay walaay maay xale maay diriger xoolal maay diriger maay daan ma barki yàlla wooteel waaw yàlla na ko yàlla may ndaw wooteel maa ngi sama mbokk yëpp sama boo moom yi ni ndaw yi nekk li may gën a ñaax gaa yi tamit moom yi ni ndaw yi dañoo sonn si man booy amuñu nekk dañuy dajale seen i fukki dërëm seeni i cent franc ñëw andil ma xama man aw ma booy dama leen di ñaanal bu baax di ñaan gaay di ñaaxaat gaay tamit ñu gën a jàpp si combat bii nii xam nga combat bi dafa nekk combat boo xam ne daf ñoo ñor trop billaay wolaay xam nga mais kii comédien la bu ko neexee gaay dëkk micro mu wax loolu dawul si yaram mais jour keroog bu bu arbitre sifflé xam naa ne moom day taxaw bu taxawee dama koy dama koy làbbali billaay walaay xale laa nekk. dama lay duma dama lay baax na xool bu baax nag. xool ma damay xool bu baax. man aw ma lu may xool si yow. wóor na yàlla yàlla baax na yàlla yàlla. aca jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax comme niñ ko waxee rek quatrième édition drapeau ki nga xam ne mooy monsieur Yves Lamine Ciss maire de muy maire boo xam ne yaakaar naa comme ni ko mbër yi di waxee liñ naan genn golo gàtt na waaye loo ci laal borom yëg ko parce que tamit maire la boo xam ne yaakaar naa nee nañ kenn ku ne boo boo sañoon am ko ci sa gox parce que maire boo xam ne day jàppale li nga xam ne mooy goxam parce que bari na mbër yoo ne chaque jour ñu taxaw ni if la min si li ma jàppale ci sama combat bii nii sama maire dëkk sax jàppale wuñ ko moom itam ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mais muy quatrième édition bi war a am fële ca hippodrome Ndiaw ma grand combat bi war a dox ci diggante caatu war a daje ki xam mooy building muy combat bu am solo parce que ñaari champion lañ yoo xam ne yaakaar naa kenn ku ne dootu leen kenn du leen présenté fi nga xam ne mooy région de Thiès mais beneen combat taxaw ci muy diggante caatu xay dagga di ndaanaan di bërekat ñu yàgg koo gis muy ñëw Thiès di fa bëri si ak fi mooy Dakar mais kan lay dajel Modou Anta numéro 2 di ndaanaan di champion kenn ku ne gis ko li mu def ci drapeau Sélta mais bala ñoo sot comme que tey yow la fekk si di nuyu waaw salle bi yëpp. waaw maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp nuyu waa assistance bi ah. waaw bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp daal. Mhm. waaw di daral saa waay nag. Mhm. te yaa ko dalal sa dëkk te maa koy dalal. Ah. waaw. Anta 2 nuyu naa la. waaw fay na la Modou Kara ginnaaw ban santee yàlla julli si yonent bi dañuy sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh mu sëñ Fallou Ndiaye Daabaay yi di sant Thiès gépp di nuyu sama ménagère di nuyu suñu entreneur di nuyu sama turandoo Moudanta mhm. di nuyu Persi di jaxate ak monsieur Yves Lamine Ciss mhm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal saal bépp jàmm di ñaanal sama adversaire jàmmu mhm. ba bis ba yàlla may ma ndam ci kawam ci barke Seydina Mohamed daa mel ni fi nga ñëw miin nga ko de ndax bëri nga fi ay tournoi fii bëri naa fi ay tournoi fii nan sàccee woon sama jakarta ba fii xam nga bëri naa fi ba final tournée di xool jakarta ba gisatuma ko kon fii moom sama dëkk la daaw rek ñëw naa fi. bëri si bi tamit mooy loolu. sa diggante caatu xaydaa daa lan lañ ci mën a xaar le 6. waaw xam nga tey moom gaañ tey moom daanaka li ñu doon wax wax nañ ko ba pare xanaa dañ koy ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp di jàmm. Mhm. di woo suñu papa Yves rek. Mhm. su ko defee mu mën ñoo jàppale ci béy kii ndax moom tamit xam nga. Mhm. nit ku baax la ñu ngi dégg loolu ci moom. ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu si combat bi. ak waa Thiès gépp di woo sama ku mel ni suñu monsieur le maire Birame lay Diop. di woo lay Diop di woo ma Massamba Diop di woo Badara per Babacar Père Ñambe Dioum sama waa koñ maa ngi leen di woo di woo waa kër maam du Moodu ni waa Daaba yi maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat di woo waa kaw Sara Fall waa Medina Fall waa taaxi kaw gama dëkk dëkk ma kenn daal di woo Thiès gépp ñu ñëw jàppale ma sama tayba tayba yi ñoom Ousseynou Assane Grand Moussa Djili ak waa marché central Maket Maan yi maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci waa marché Jën ñepp dal di wo wa mbar ma xam nga. di contane trop nak ba ci bisu tay bi dal waaw. di ñaan ya chat le 6 lan lañ mëna xaar drapeau Iflami 6. waaw ginaaw bu ma sande yalla julli ci yonande bi sande sama ñaara jur sande sama gaay ah ñi may andal ah sande sama kana bi sala ah di sande ñi fi tew yeb wa stade bi ah bàyyi ma kenn. le 6 lan lañ mëna xaar ci côté mobilisation ci côté bëre. non le 6 ki ki mako ko ëpp kii maa ko ëpp mbooloo fuuf. ante mbooloo fuuf. ba sëriñ Ba wax ko narawoon wala talaay. sa mbooloo le 6 nga ko narawoon. le 6 gars yi dinañ gis loo xamante ne mësuñu ko gis asat soobee yàlla man dinaa mobiliser wu ñëw ñoo xam ne beneen caat moo ñëw tegaat tàngam si biir kees man dama nekkoon sama rokul di liggéey du kii moo may téye kii mënu ma téye su ma duggaatee si biir kees daa am lu tax. waaw du kii xoolal ni ma toll xale bu ndaw. sa adversaire kay nga koy xale bu ndaw ma liggéey. parce que Serigne Babacar dama liggéey dama am doole. billaa walaay sama doole bi dama ko wóolu trop. te da nga ko bëgg a woon kii nii. dama ko wóolu trop. gi déggoo maintenant kii mënu ma téye kii ma ko déggoo maintenant patron laa solo mu ànd wala ñoom am am kii amul laas kees ñoom laa ko doon ñoom ma tax a yëg di wane du kii. kii mënu ma téye ñu bàyyi nga woote la man dinaa ko jox yaa wooteel ba kii bu muy bu bu muy bëre judooguma. kii nii seen naam bu muy bëre judooguma billaay wallaay tallaay. ndaanaanu bëre kat la dafa waat. ma ne ndaanaanu bëre kat. man du ma waat wat loo xamante ne xam nga kii bu muy bëre bëriwuma dama koy ñaan yàlla defal ko jàmm. nan la bàyyi nga woote ba le 6. waaw nga woo ñi lay jàppale ci bis bi. maa ngi woo si maa ngi woo if kii kii laa njëkk woo ndax kii kii day dama may jàppale guddeeg bëccëg barke Serigne Ahmed billaa wala maa woo si combat parce que bee jeena comme ni ma la ko waxee keroog jeena yaa ngi dégg di woo monsieur le maire Maguette Mbaye xam nga di woo waa Diamaguène Diamaguène Sicap Mbao waa Fora maa di woo Jembare ah woo waa Ginaaw Raay yaa ngi waa Morla yëpp maa di woo man doomu Mandé Mandé laa man séeréer laa ma koy séeréer Morla laa ooyu gëpp lan xabaaso mooy Morla tout mais xale kenn Wow, di ñaanal nag sama doom day yàlla may ko ndam bu sedd guy building ñun ay séeréer la ñun ragaluñ fu ñuy féetee xoolal ragal féetee day xañ a wërsëg te si kattanu yàlla ñu ñooy bëre ñu ñooy xeex ñu ñooy daan jaajëf ñooy duy stade ba mu fees ñu bàyyi ngeen jël waaw di ñaanal kii nag if lam Ciss di nga ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan lépp lu mu mën ren déwén yàlla mu mën lu ko raw ndax ki jàmbaar la ku jërë jàppale moo nekk nii bilaa walaay tallaahi waaw da ngeen jëf mbokk yi ñuy siifur ba léegi rek drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi mu taxawal combat boo xam ni nee naa la combat bi rek doyoon na grand combat parce que yaakaar naa diggante Kéledor mi nga xam ni mi ngi ci cinq combats cinq victoire di war a daje ki nga xam ni mooy subaan ko yaakaar naa diggante mag jël dem kenn ku ne seetaan na ko waaye digganteem ak sëll bu ndaw yaakaar naa kenn ku ne seetaan na ko Thiès di ñaari ndaanaanu bërikat nee naa la combat bi rek bu ko tëggoon Thiès bu ko tëggoon Thiès hippodrome jaw ma ko day fees dell parce que combat la boo xam ne mën naa ne amaatiri làmb yëpp dañ koy xaar muy ñaari ndaaraan mais dañuy bàyyi ki nga mooy Clédor rek bàyyi ko mu nuyoo waxtaan ak adversaire am Clédor nuyu nañu. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu fàllu mu suñu murtala di ko ñaanal euh, yàlla bàyyi ko fi mu yàgg suñu kanam ba ci kanam a kanam kanam di ñaanal di ma rët suñu yalla bàyyi ko fi mu yàgg fi lol di nuyu waa Thiès yëpp di jiital ci nuyoo bi waa Cité ñax bu baax a baax a di nuyu ñi ma àndal sama gars ma àndal yëpp ñoom Bamba boo limee Bamba rek da nga yóbbaale aha di nuyu waa Cité ñax waa festival jàmm gën Cité ñax ak li ko wër sax laay wax yëpp ndax foofu benn champion moo fa nekk muy Clédor doomu dëkk bi di nuyu bu baax a baax waa Touba leen nuyu bu baax baax di nuyu waa Tamba di nuyu waa Dakar di nuyu waa Guinée Bissau di wax sama mbokku njaago yi bayti ña ma njaago ma duy ndiba léng ñaana ndiringa bu waar uh-huh. sant yàlla bu baax a baax a baax nag uh-huh. subaande ko bégg nañ la auzubillahi mina sheytaani rajim inna wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba ñu ngi nuyu bu baax ñun fekk ci biir kii bi kii macha allah di nuyu tamit ñu ngi koy nuyu baax a baax nuyu Père Sidi Diakhaté. maa ni xamante na ci diggante bi am na lu ñu laalante man moom. yow ak moom. waaw am na lu ñu bis bi egg seegul. dama li ma mën a wax daal mooy 2 0 3 0 bi le 6 la bu soobee yàlla. ñu ngi woo waa Madina Fall gépp di woo waa Thiès comme ni ma koy waxee rek di woo ci maître mu jàpp ci kombaay bu baax a baax jàpp ci béy xam nga di woo waa Thiès comme ni ko daan defee rek combat yi taxaw na béy na jeex tàkk bu ko defee yaa ma gën a xam mooy loolu. waa ji laaj nga ko kañ la ñibbisi non man man doomu mbër laa amul lu may laaj mbër barke Seydina Mohamed laa ma ji bu doon léegi ngemb laa indaale mi ngi nekk saag ba ngemb barke Seexul Xaddim mi ngi nekk ci saag ba yéen da ngeen a bëgg a bëri te li déggoo li ma la combat bi daa doon combat boo xam ne bu ma ñor sama waa ko ñu ko di woo waa nekk foofu yëpp di woo Lamine France di ko woo ko comme na mu defoon rek na ñëw jënd bee yëpp mu jeex ngemb laa ngi ne yaa ngi dégg li ma la nii bu ko neexee après ñu maye ko yaa ngi dégg waaw kay voilà kon xam nga ne làmb kon ñor na ma di woo ñi daan jàpp ci combat bi yëpp ñëpp ñu ñëw jënd béy béy teel a jeex ñu dem stade bu soobee yàlla man li ma leen amel mooy abdi soufflé ma jàpp kale door mi daan ko jël bu rëy bu neex yàlla di woo waari làmb faal waa jagataay ñëpp nanu préparé ndax combat bi seen combat ñoom laa ko may Kelle Dóor xanaa xanaa ngemb li moo taxoon nga dem Tamba dégg naa fan yëpp Tamba waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax di waa daara ja nag waa daara ja wuyu ma ci li ma la bokkal waaw di woo suñu papa Mout Sall di woo suñu papa euh, di woo ñëpp daal ci combat bi. bu ngeen laale woon yéen combat bi laale wuñ fenn laale wuñ fenn waaw di woo suñu papa ñoom papa Moustapha Sour yëpp maa ngi di woo sama turandoo Kelle Dor Fall. Kelédoor Fall moom ndeysaan kenn la ci man maa ngi ko yow bu baax a baax a baax suñu pap Kelédoor ni ma ko daan waxee rek moom li ma ko daan wax na ñëw defal ñu daan defal ñu defal ko lu ñu ko daan defal waa Cité Ñax maa leen ko digoon maa leen koy digaat maa leen ko ensiréel ne leen victoire bi incha allah samedi le 6 day ñëw ñu feete ko ni ñu ko incha allah di woo ñëpp di di di woo di woo ñëpp sama open press sama open press le 6 la incha allah sama open press le 6 la incha allah di len wo ñom ñepp ñu ñew de nga lim wax sa adversaire di nuyu suñu papa Sidi jaxate bu baaxa baax di ñaanal sama ñaanal di ñaanal sama di ñaanal Matar ambulance ci combat bi mu jëm yalla may ko si ndam bu baaxa baaxa baax a Matar Mbaye ambulance ma ngi wo ci combat bi bu baaxa baax. da nga wax sa combat bi. yéen daal mel da la. Matar Mbaye laalo combat dama ni sama diggante man ay yow amul ci wo do ci wo kenn bam fekk la ci digëw ba man ay yow la. la 6. Touba kër gi ngay seetee gëlëm gi sax maa la fa gën a miin. waaw amul problème daanoon. xam na li ma ko wax baax barke Seexul Xadim. mu mu ni mu ni le 6. man ak man ak man ak Ousmane man ak yow. ku ëpp doole ci combat bi ku gën a sonn ci combat bi ku gën a ñeme ku ëpp fit yàlla na ko yàlla may ndam da nga naan amin na ko yàlla may ndam barke Seexul Xadim ku gën a sonn ku gën a doon ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. yéen ñaar yoon. mooy magam dama ne la xoolal dama ne la dama ne la. dama dama barki Serigne Touba maa la ëpp doole maa la mën lépp maa la ko bële ci làmb ji damay ñaan yàlla duur làmb nga ñëw barka tëgguma ko sama bët yéen bu ngeen waxee ñii ñii bu ñu waxee xam ne tëgguma la bët barke daanuma kenn ñëpp dañ maa daan. Ousse maa la mën ñëpp dañ maa daan. yaa ma man waaye maa la ëpp doole. waaw kon jeex na na signature bi nee du arrière. ñu ñu bàyyi ngeen woote. du arrière ci combat bi nga ne doo arrière sa diggante ak yàlla doo arrière kon kay neex na kon combat kon du ma deux minutes bi du ma deux bu fekkee du ma deux minutes wooteel une minute ci <laughs> <laughs> waaw di woo woo déggoo li ma la wax. wooteel di nga kilim ndax nee na la ku amul doole bokkoo. combat bi ku ci ëpp doole yàlla na la yàlla may ndam. wooteel. di woo waa Touba yëpp di waa Daara ja xam nga li ma la wax est-ce que yaa dégg di woo waa Dakar di woo waa Guinée Bissau baax a baax a baax di leen woo ci combat bi ne leen kii moom xew mu ndaw la lañ daan def juruñu koy def parce que kon damay bañ mu jour combat mu bañ a bëri nañ ko bàyyi mu ñëw bëri si rek man loolaay ñaan nañ ko bàyyi mu ñëw bëri si man maa ngi ñaan yàlla rek li may ñaan ci combat bi

di woo sama waa koñ waa Areba di woo waa waaw danga ma même xam ne ma ko tëgg nii yow da ngaa jàngul ko waa booy bu da ngay dund waay gars yi ma dem toog ba ngay wax dama ni ceelu quoi booy dund intellectuel jàngul kay xam nga di woo waa Madina faal bu baax a baax waa Areba maa ngi leen di woo yaa ngi dégg yaa ngi dégg non ñoom xam nañu bu baax entraînement laa fekk tas seen équipe ñoom ñii tas seen équipe dama ko tas mhm. waa ñoom ñëpp xam nañu ma xam di woow ñoom bàyyi pël ñëpp ñoom ñaar ñoom ñoom ñaar wooteel mais mais mais ma woote gayen xam di woo ñoom ñaar xam di woo ñëpp di woo ki nga xam ne mooy di woo di woo gars yëpp pour ñu jàpp ci combat bi xam def leen war a def yëpp comme ni ko daan defee rek kii moom du ma tee ndax am na fu ñu jot a jaar ci diggante bi yaa ngi dégg bu soobee yàlla yàlla dañu may ndam bu neexee suñu borom jaajëf am nañ ci yaakaar bu baax a baax di woo waa di woo waa Thiès ñëpp nag di woo sama waa are sama waa koñ combat bi seen combat la daf nga naan def yéen waa are bi waaw yéen moom combat bi nag di woo Matar Ba ku ci béy di woo ki nga xam ne mooy ñaa ci béy yi di woo gars yëpp di woo ay mëlay xam nga di woo ñëpp ay ñoom Ablaye Dieng ñëpp maa ngi leen di woon jàpp ci combat bi. jël leen bu baax a baax ba léegi rek drapeau Iflami 6 bii di quatrième édition bi grand combat bi war a dox ci diggante building bu muusante ak caatu limousine mais combat spécial bi taxaw nii wara a dox ci diggante doomu cees ak Uno bu campement Ngeexoox muy combat bu am solo mais bala ñoo sori rek dañuy bàyyi ki nga xam ni mooy doomu Thiès mu nuyoo doomu Thiès ah, Kara ñu ngi lay fay ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi di sant sama papa bu baax di ñaanal sama yaay yaanu ko yàlla xare àjjana du nuyu suñu xalifa seen miniiru njëgeen di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd suñu père Sidi Diakha ko sant bu baax du nuyu monsieur le maire Idi Lamine Cissé waaw du nuyu sama adversaire. Ino borom campement. gaynde nuyu naa la. dégg nañ la. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu gërëm suñuy ñaari waajur bu baax di remercier père nit soxla combat yi ba tegu ko di laa jaajëfal yow mii taxaw suñu wet dañu laaj ñuy wax di nuyu sama adversaire bu baax a baax. le lan lañ mën a xaar sa diggante ak doomu Thiès. bu neex. ah combat bu neex. dina am xeex. torop dina am bëre. waaw ci bëre lay jeexee. ci bëre lay jeexee. sa adversaire nee na ci bëre lay jeexee. waaw combat bi mën naa jeexee si lépp maay xale. mën naa jeexee ci kaw. lépp maay xale maa mën maa ëpp doole. kii fu ma ko jàpp jëmale ko fu mu jëm fa. yaa xale yaa man. maa ëpp doole la ma ko waxoon laa koy waxaat. ñàkk adversaire moo tax ma jël la kii xool naa ko bu baax ñi may daan ñoo ko ëpp fop ndoomaara ko ëpp fop te bi ma ko jàppee fu ma ko jëmale laa ko jëm kii taxumaa jóg li sama kanam laay xool la ma ko xoon rek combat bi moo ma tee bëre grand combat te bii laay tàqale ko gars yi c'est spécial ndax jot na ma bëre grand combat. nee daa bëgg a tàqale ko gars yi te ci bii lay tàqale ko gars yi est-ce que ko ko may. bëgg a bëre moo tax ma jël ko moom. yéen daa mel yën a bokk jàng. kon mën naa nekk. mais dama ni la bañ def année balance moo tax mu jël combat bii mais kii du mën ak moom ci làmb. doomu waaw làmb tëre ji ma jël ko mais du man ak moom ci làmb maanaam du adversaire de palmarès foofu laay waxe waxee. palmarès boolewul déedéet bëri ñu boole nag. làmb boole na ñëw xëy na raam na bañ a ane balance moo leen boole yéen billaay wallaay mais maa ko man fuuf nga xaman sax maa ko man doomu Cees mi déggul li ma la wax tey laa tey laa tey laay mujjee bëreel Sidi Diakhaté avant grand combat tey laa koy mujjee bëreel di Diakhaté mu ngi xaw ma anamoo jóg na te laa koy mujjee bëril. dina ci jot kay. voilà su ma mënatul jox grand combat du la baax ah. mais adversaire di wax rek laaj ko man kan la fi daan moom kan la fi daan. Ah? ne ko kum fi daan. ne ko kum fi daan. waaw mu ngi nii moom laa waxal nga laaj ko ko. moom kan la fi daan mu ngi nii moom kan kay lim. jarul lim. parce que da ngay bañ mu daw. déedéet ñooñu jàllal nañ moom laay waxal ñooñu jarul ma leen dem nañ moom laay waxal ñaari combat la am moom. kii daa baax de wax rek. daanu fi kenn kii daanu fi kenn. kii daanu fi kenn kii man maa ko may sens kenn xamu ko. wuyul mu ni ñaata combat kii may sens kenn xamu ko. te su jour ba dinaa ko wan. ñaata combat la am. te su jour ba six wala sept combats. sept combats. sept combats six victoire benn défaite. kii laaju moom moo tax la ma ko waxoon rek laa koy waxaat. li nga bëreeg boo xamal mën nañu koo xaar sa diggante moom. kii sa ko mën maa ko ëpp doole fu mu taxaw ma fekk ko fa. li nga bëree ñaari yar mën nañu koo xaar sa diggante ak doomu Thiès. su bëree daanu su xeexee daal ma duma ko. li ma def ñaari yaay lu ko laa koy def moom. ki ma ko man du ma mbër mu ñuy du ma du ma mbër mu ñuy dox sama kaw lu leer lu raboo lool nga sóor ko bis ba su arbitre sifflé su taxawee dëggal boppam su arbitre sifflé bu taxaw dëggal boppam. arbitre bi waaw moo dox suñu diggante arbitre bi moo dox suñu sama diggante ak moom moo ko fa bàyyi. na ne bu arbitre rocc arbitre bi moo ko fa bàyyi moom mu taxaw. kii daa baax di wax li muy wax ni yëpp du ko indi jour combat ba arbitre sifflé fa la lay taxawi.

ku daan jël ko. yaa ko tee neex nañ ko si léegi. ana këyit bu weex nañ ko signé léegi. ñeme ngeen ko. papier blanc. bu ñuul. nañ ko signé nañ ko signé. buñ paree ñu si ko suñ paree ñu signé ko. ku daan. ñu bàyyi ngeen jël photo. waaw ku ñu daan nga xaasu. waaw ñu bàyyi ngeen jël photo. mën naa ko. waaw. waaw maa ngi woo monsieur le maire Idi Lamine mu jàpp si bee waaw ñu ngi koy woo bu baax mu jàpp si bee ndax drapeau am dañ dañ koy sawar a bëre moom wax dëgg ndax gis nañ lu baax li muy def ñu ngi koy woo mu jàpp si bee yu baax a baax di woo Mayoro Wade mu jàpp si béy comme ni mu naan jàppee di woo ministre Abdou Fall mu jàpp si béy soxna seeni bu njegéen Cheikh ndooy waaw maa ngi koy woo bu baax a baax Alhaji Idrissa Gaye sëñ Abdou Ba njegéen maa ngi koy woo mu jàpp si béy bu baax di woo waa Kër Maalaaji ngeen taax kaw min na Kawsara waa di woo monsieur le maire Babacar Diop mu jàpp si béy monsieur le Biram Souley maa ngi koy woo mu jàpp si béy bu baax a baax di woo waa Ngent Kër Maalaaji taax kaw Daabaay Kër Cheikh min na sama mbokk lébu yi maa ngi leen bu woo bu baax a baax a baax ak sama mbokk saalum saalum yi ak sama mbokk jolof jolof yi maa leen woo bu baax a baax a baax ñu jàpp si béy yi jàpp si combat bi ba pare ñu jàppaa si béy bu baax a baax a baax a baax ndax bii moom ma tey bëre grand combat incha allah su ma si jigee kii taxu ñëw jóg la ma leen waxoon sama supporter seen xel na daal bu baax a baax a baax kii su arbitre sifflé ma jëlee ko fi mënu maa téye maa mën maa ëpp doole la may waxaa si incha allah ajo ino wooteel ñu lay jàppale waaw ginnaaw bi ñu nuyoo monsieur le maire moom la ñu woo ci bis bi comme fi lañ ko fekk dëkkam moo lañ tudd drapeau bi monsieur le maire yow laa waxal damaa bëgg nga jàppale ma jàpp ndimbal kese laa soxla su ma su ma kii envoyé wuloon paas du ma ñëw parce que awma lu ma indi mu ngi nii taxaw su ma envoyé loon paas du ma ñëw damaa jeexal tàkk awma lu ma indi woon fii moo jox paas ma ñëw dama bëgg damay dem léegi li nga def ma man def koog léegi ma dem. maa ngi woo monsieur le maire Pape Songo Diouf bu Kàmmaange ko wax maa ngi koy woo mu jàpp ci combat bu baax a baax billet yi ak ak ak oto yi laaj naa ko ñaari bloc jeex na joxaat na ma beneen mu ngi ñuy toog lu amul seede baaxul wax day tungoom laaj naa ko ñaari jeex na jox beneen mu ngi ñuy maa ngi woo maam Xaali Sarr di woo Malick Gueye am di loo Balla Si maa ngi leen di wax ñu jàpp ci combat bu baax a baax waa Ngekoox fàttewuma kenn amet jàlloo maa ngi leen di woo ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax. sama nar bi maam xaali Sarr nag dama koy woo mu ñëw jël combat bi jël ko ak ay ay loxoom def ci lépp loolu kese laay xaar si moom maa ngi woo waa Kàmmaa ngi wax yëpp ak waa dakaar Golf Sud maa leen di woo bu baax a baax waa Géejawaay maa leen di woo bu baax pour ñu ñëw jàpp si kombaa bi xam nga lu ma leen sant na ñëw toog stade kese man tribune dong laa leen soxla nañ ñëw toog li des si suuf man maa koy def. rajo ñu bàyyi ngeen jël photo kon. waaw du nuyu sama gars yi ma àndal sëñ Mody Ndiéguène Madio Faye ak Apollo ak nuyu suñu chauffeur bi waaw maa leen sant bu baax waaw mbokk yi ñuy siifur ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi fii ci Morolan di fi présenté li nga xam ne mooy drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi Sidi Diakhaté production war ko amal fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma Koddu mu yem ak samedi le 6 mai muy bis bu am solo mu boole ci ñaari ndaanaan ñaari champion parce que yaakaar naa buñ ne building bu muusante lañ jël jox ko caatu limousine yaakaar naa loolu bis la boo xam ne amateur làmb yëpp dañ koy xaar waaye ki nga xam ne mooy building kenn ku ne xam na ko ci ambiance ci côté bëre parce que yaakaar naa kuñ ni daan na ambiance yaakaar naa kuñ ni daan na ay dara karara daan joal mi mag bëreeg alaaji gaynde bëreeg booy jaxaa kooku yaakaar naa doonatul champion boo xam ne des koy présenté ci làmb mais kan lay dajeel caatu limousine di ndaanaan di bërekat koo xam ni bu jógee tund Morolan bi yëpp jóg topp ko parce que koo xam ne nañ bëri naa ak ki nga xam ne mooy caatu dali fort grand combat fële nga xam ne mooy arène nationale daan ko bëreeg taaw anta bëreeg ñoom trompeur numéro 2 bëreeg ki nga xam ne mooy l'enfant bu kër baaba waaye daan bisaan yoon bëreeg Karara Karara numéro 2 bu bu muusante na ndaanaanu bëreekat moom itam yaakaar naa kooku buñ ne mooy bëreek building bis boobu képp koo xam ne amateeru làmb nga rek foo mën di nekk di dagg bee ñëw mais bala ñoo sori dañu bàyyi ne mooy caatu limousine comme que tey moo nekk dëkkam ñu bàyyi ko mu dalal adversaire am building caat nuyu nañ la waaw ah, fay nañ la aousubilahi mina seytaan rajim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonante bi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax di sant suñu sëriñ di wax jërëjëf a bàyyi alpha combaan jërëjëf a bàyyi alpha combaan waaw di sant monsieur maire tamit waaw if moom bu ñu bëree drapeau am day doon lu ñu neex quoi ndax yàgg nañu saa bu ñu amee combat day yëkkati xaalis bu bari maa ñu combat boo gisee lu tax ma jël ko li mu nekk drapeau if ndax année yëpp if yaakaar naa bii mooy quatrième édition quatrième édition waaw tam mbëru Mor la mosul bëree drapeau if man ren jii ne dama koy jël jël bëri ko jëlee drapeau bi Thiès andiwaat ko biir Mor la fii hmm? maa la wax loolu building borom muusante bégg nañ la waaw onsu billahi mina seetaan rajim ginnaaw bi sant yàlla jëy julli si yonent bi ñoo ngi sant ci ñaari waajur du sant gaay yi ma <laughs> andal euh, ñëpp duma ma tudd ndax mooy lool ñoom xam naa si seen yéene ci man di sant waa Thiès di sant waa Arcos di sant waa Kër Seigne Ablaye Yaqin du woo waa Thiès gi yëpp ñu ñëw jàpp si di woo mëm mëm mu ñëw jàpp si ak sama benn xarit bi dëkk euh, Morok Matar maa ngi koy siyaar moom jën jën na ay bee Ah, di woo samay mbokk loobe yi ñu nekk Espagne ñu nekk Italie maa leen di woo yéen ñëpp kenn ku nekk sa turu sant. di woo sama grand frère Samba Loobe Amady Awa ak ji jëkkëram bu naa nee na moom dana jàpp si combat bi. waaw di yoo waa Thiès yëpp nag di nuy ku ma war a bërër caatu limousine. du du du nuyu monsieur le maire Islamine Ciss lay nuy di la sant. di nuyu suñu papa Siri Diakhaté di nuyu presse bi di nuyu Mame Bamba di nuyu ñëpp. Mhm. waaw di sant suñu papa ñun suñu ci ci suñu papa ñun ñun ak moom la am boolewul. dégg nga sa adversaire li mu wax. waaw mais loolu après danañ ci ñëw. Mhm. loolu jarul yàkkamti. Mhm. mais kii suñu papa la. kii doo toog trois jours te fekkoom seen kër. ay yaayam ay ay magam ay magam ay rakam ay jarabaatam ay doomam ñëpp samay xarit lan làmb boole bu làmb jeexee taw man moom dari kon ne du nuy gars yi ma àndal yëpp du nuy borom jakartaay borom moto yi ñeen ñi ma soba du nuy waa dëkk waa Morolan waaw kii Yves Lamine Cissé maa ngi lay nuyu nga jàpp si bii comme ni ngay jàppalee sa waay nga ñu koy jàppalee dégg nga sa adversaire li mu wax ñun ñoo far ñu nekk ñu ay ndoon làmb xaalis moo ñu boole rek après bu jeexee jeex na mhm. mais kii maa caatu Limousine maa lay nuyu dool jox sa wàccuwaay waaw dal dal ak jàmm sa dëkk yow dama lay dal. yaa ngi koy baab de. fii sa dëkk la mais dama koy dal. yaa ngi koy baab laa yaa ngi comprendre kii kii li ma koy wax mooy comme lu Siri Diakhaté wax rek moom daa yorutoon dërëm looloo tax ministre yi jox ma bild ginnaaw drapeau bi drapeau Yves Lamine Cissé la ndax sama. ko korite neex loolu nga wax Siri Diakhaté billaay sa korite dana naqari i la jox naa la jox ay ndewendeel yoo xamante ni naa ko bëgg a jox ndëwëndel naa la jox ndëwëndel boo xam ne ba nga juddoo ba léegi mosoo koo daj xam naa nag du ma seq yow ay wax ju bëri ne ne ne ne sa ndëwëndel da ñëw nee sa ndëwëndel dafa nar naqari sa korite neex na mais sa ndëwëndel day naqari sama korite neex te day neex kii ta kara làmb làmb boole wuñu de building mii nii li ma def ci làmb moom ma jiitu ci làmb nekk mais li ma def ci làmba defu ko. ku bëreeg ambulance xoolal suñuy palmarès. bëreeg ay dara Kara. kii maak moom du yàgg sax bëreeg booy kii maag moom du yàgg sax. kii combat bi mu jël xamu ko sax xaw man maay borom top 5 damaa garaaw de am na combat. building booy bi xamula de. waa du nuyu sa champion yi fi toog yëpp dama juum xam nga rek maa ngi nuyu sa champion dëkk Thiès yëpp yéen ñu dëkk Thiès yàlla yàlla may ndam du nuyu ñëpp ah. mais kii waxi signature lay wax xam nga waxi signature moom. micro yu topp la moom xam nga tàmmul ay ay micro yu bëri topp. nii waaw tàmmul yii mooy loolu. caat mi loolu man dama seex moom. Ndakaaru Ndiaye euh, dara yàgg ma yow kii dama seex ak moom wax ju yàlla na ma yàlla may ndam ci làmb ji. doo seex ak moom wax ji bëri. dama seex ak moom wax ju bëri ar ni purité da daw génn saako yi. ba ba ama rey la ba ama gaañ la yow. yéen yéen yéen gisante wu leen bu combat bi ma jël nii dama kaa fonk trop. bi nga jël nii dama kaa fonk trop lan nga fonk ndax Kara boo dee xool gëj naa Thiès trop. waaw sa digg depuis depuis digg sa diggante ak l'enfant. combat laa bàyyi Dakar bëgg a bëre Thiès moo tax ma bàyyi ko. bëgg a bëre Thiès te drapeau if man dama yàgg a rêvé pour bëre ga andi ko biir Morla. tey de Sidi waa Morla dafa am loo xamante dañ ko dese mooy roi des arènes man ay kii so roi des arènes laa bëgg a andi biir Morla fii. daf cee manqué te Morla ay champion ñoo fi ne ay champion Yves Lamine Cissé nag maa ngi koy woo di ko wax ne combat bi sa combat la dëgg bëgg naa dëkk bu ne mu bàyyi fa ay car stade bi ñu feesal ga del ñu bërë bërë bi daan daal building mi mag la kii mag waaw wuy ma euh, yow. kër mooy Paa man. wóy ma kii di ma seexa moom ay ay wax ju bëri. yow yaa paa wala man maa paa xool xool. man dama doon rêve ba bëri ak moom waaye yow. xoolal yow dama doon rêve ba bëri ak yow. roi des arènes boo gisee mi ñëw rek da nga naan roi ngeen. mais yow kan moo la gis naa roi des arènes. kan man yow mënoo doon roi kan man dama lay wax. yow dama seq yow wax ju bëri te wër na sëñ Bamba yu yàlla may yàlla may wér ba làmb ja. nga xam ne yow doo waga bu euh, aar bi suuflee beneen caat ngay gis. bu aar bi suuflee beneen caat yow maa la mën maa yow paa nga yow ngay paa. mu ne bu bi beneen caat lay gis te le 6 la. incha allah le 6 est bi suuf lee doo gis beneen building. bilaay kara combat bi terewu ma nelaw. jaar naa fu gën a métti da nga tallaay jaar naa fu gën a métti fii. est-ce que at bi suuf lee ku nekk ko xool. ko xeeb doo gis jël wuy ma kii waxit que Camara yéegat tiim rek. Camara monsieur le maire toog muy wax. bëgg bëggu la nekk dëkkam. <laughs> maire yi yaa yi rek oui ma. ma yow man nii ma lépp léegi. <laughs> jàppal ci affaire yi nag. xam nga dañuy signature. waa ji daa nekk dëkkam waaw tim ko. ma takk rajo Siri Jaxate naa ko waxal muy mbala la <laughs> di wax xam nga Siri Jaxate moom looy gën di wax mën naa la waxal. yaa ngi comprendre wax Kara dijji dëgg rek a gën. dijji dëgg rek a gën. kii ni maa la wax loolu guy ma guy rëy na loolu mais matul këriñ kii maa ko ëpp doole fuuf xale laa ñu bàyyi ngeen maa ko ëpp doole fuuf ñu bàyyi ngeen woote waaw di woo waaw di woo waa Mor laa yëpp avant tout ñu ngi sant Père bu baax a baax ak Père Pambay mhm. bu combat bi taxawee tey sonn na ci quoi waaw ñu ngi koy jaajëfal di wax kontaan nañ ci moom quoi di woo waa Mor laa gi yëpp nag mais doog booy Mor laa la tout tund mi Mor laa mu pooda monsieur le maire combat ma bëggoon dafa xabra so fa lomi sa billet tout gën bu ne yéen yéen tig nañu kaar yéen saa yéen building bee kolo roi de serel moo ma bëggoon di ko biir moo la koy séréel ɓoy xenta mante mante rek mais talal ya soro mais mais kenn ku ne na ñaan iso le 6 inshallah ko on ɓoo ndam mais doog ginna tout luxus xay ballu gowut pambal daaru alpha tiwin morla cilaan joor cilaan ballu mexele fen loofe boyti fep nodo guy jama monsieur la maire nag ñu ngi lay woo kii ni Maguette Mbaye ñu ngi lay woo ci combat bi sama papa Mbaye Combaan maa ngi koy woo ci combat bi sama gars yi ne Allemagne grand Badou grand da grand woon fu ma toll nit làmb di joué na ci lu bari maa ngi koy sant bu baax a baax maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla suñu borom def maa ngi sant ñoom Moussa Sine ñoom Arlette Arlette day sonn ji man maa ngi koy sant bu baax a baax mbëru Morlaay 100 pour cent Morlaay maa ngi woo ñëpp di leen wax ni combat bi du sama combat de seen combat la di ci jiital Lamp Fall Lamp wool gars ñëw jàppale seen doom. aca Billing ñu bàyyi nga woote. waaw maa ngi woo waa Thiès gépp da woo waa euh, waa maa leen woo ñëpp tam man Billing Billingu Sénégal la yaa gis is la lamin si damaa ñëw rek muy ree ndax xam naa ba mu toogee ba léegi réeru ndax mbërëm bi mënu kaa reeloo maa ngi woo ñëpp waaw man yow man lépp laa man ku ma gis xam ne lépp laa mm-hmm. yaa ngi comprendre instant yi théâtre kat bi moo ñëw mais lamb ji mu champion bi mooy ñëw mbër mi lu leer laa lay wax waa di woo ñëpp daal di woo waa kër Sidi Ablaye di woo waa waa Cité Senghor Cosmos di woo sama grand Baba Gale Cheikh Niang di woo suñu mbokki mbar yëpp waa Thiès mbar yëpp maa leen di woo ñoom jàpp si lamb ji yaa yàlla may ma ndam si kaw limousine. jaajëf jaajëf ngeen jël ngi woo sama staff bi nag Babacar Abdou Fall Omar Mbenga Ibia Thiam gis naa ko fi maa ngay kontaane bu baax sëñ ñëpp waa Boyti yëpp nag maa leen di woo ñoom grand Mourou Ngoni ñëpp. asalaamaaleykum ñu ñëw tey Morolan fekk fii monsieur le maire Yves Lamine ñu doon def chaque année Siri Diakhaté di la tuddee làmb ren ñu ngi ci quatrième édition. mu lay tuddee làmb ñu ñëw tey fekk la fii ci Morolan mën nga ñu wax rek ban yëg-yëg nga am ci loolu Sidi Diakhaté di la tuddee làmb chaque année ba ci ren muy quatrième édition bi. waaw maa wax damay gërëm yàlla sant ko euh, occasion la aussi pour ñu balante ak ñun ñëpp kon ci sama bopp maa ngi baalu ñëpp ak di yéene ku ne jàmm ñun ñëpp ay néew du dool lañu. képp ku tooñ tamit jàppal ni baal naa la def nañu ay édition yàlla def tamit mbas bi ñëwoon ñu xawoon taxaw mbas bi bu mu demee tamit nekkatu fii boo am na sax tuuti mais ñu gën a góor góorgóorlu rek pour mu bañ ñëwaat mais ñu war ko gërëm bu baax sii di Diakhaté vraiment kuy wax rek boo gërëmee yàlla ba pare da war a gërëm sii di Diakhaté moom mii xam ni di jël ay risques pour tëgg làmb tëgg lamba mbirum entreprise de mbirum entreprise risque la kon Sidi na la yalla fay ci li ngay defal ndaw yi kon Sidi buñu woyé ñun en tant que maire ñu yoré ci suñu compétence ñu yor ci ñaar xam nga lamb de mëna naa dafa ëmb ñaari compétence benn compétence bi moy euh, sport benen bi moy aada ak culture loolu nag fekk na ne ñëw na ci ñun ñu war ci jàpp ñu war a ci jàpp bu baax a baax parce que loolu suñu liggéey la bu ñu gisee kuñ ciy jàppale dañ koy gërëm dañ koy jàppale tamit ndaw yi tamit ñu xam ni Sidy lu muy def ñun lu ñuy def pour yéen la pour yéen la bu baaxee pour yéen la bu yàqoo yéen a ko yàq kon boog foofu damay woo mbër yi wo supporters yi sportivité non violence parce que violence fu mu nekk dara du fa bax kon bok ma ngi ñaax encore sportif yi manam muy yéen mbeur yi yéen supporters yi Sidi Diakhaté lu mu leen defal bu leen ko yak bu leen ko yak dañ ko wara encourager ñu xamne rek sport surtout lamb ku fa dem da ngay daan wala ñu daan la. kon boog loolu di nga daan tey suba ñu daan la kon boog ñu xam ni rek sport moo demee noonu bu dee am na ku daanu kii daan na dem nuyu ko vraiment ñu jaaman santé vraiment loolu moo gën a am maanaa ko ñuy def violence en tout cas maa ngi woo waa Morlan yëpp rawatina conseil rural u Morlan maa ngi woo notable yi mais maa ngi surtout woo sama ancien yi maanaam ñi xamni ñoma samp fi Morlan moy wa parti socialiste ma ngi di dimanche samedi 6 mai ñun ñep ñu dem ci manam ci lamb ji jappelé Sidi jahaté jappelé suñu jeunesse ma aussi président de la République di wo ndax mom moma wolu def ma au conseiller mang koy gërëm ci loolu ma moo wolu tamit aussi def ma euh, candidat ben boko yaakar fi ci commune morna ñu gagné ko kon ñu koy gërëm suma paré ci mom ma ñëw ci amata mengé ndjay sama responsable politique sama président gërëm nako. ko nek ñoo nekkon réunion réunion bur né ñu mé ñun mom moom surtout dañ koy ñaanal wër mu wër mais mu surtout te suñu parti bi gën ko yóbbu ci kanam vraiment lolu. maa ngi aussi mbëru Morlan 100 pour Morlan yéen ñëpp ngeen mobiliser wu pour gunge seen morom yu ni dañuy dem en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di gërëm ñi xam ni nañu fii di ñaan en tout cas euh, liñ ci dugg nii mu ñu jeexale ko ak jàmm jàmm daal moo moo baax ci ñun ci Sénégal Sénégal compétence

tabax nañu presque classes yépp ñu koy tabax amul kii mur d'école tamit fi ak euh, benn at ñaari at ci kanam école yépp lañuy ñuy miir dañ koy compléter bi ci dess manam moy fi Morlan zéro enfant dans la rue xalé yépp ñu ngi jang ñu ngi leen di gunge ci fourniture et cetera secondaire bu fa démé tamit créé nañu école sociale manam bép xalé bu ñu dàq lycée la commune a créé une école sociale di jàppale di motiver enseignants yi beneen bi bo démé université tamit. Euh, presque les régions région yi pour fépp am université am nañ fa ay appartement Dakar lu ñuy fay ci appartement yi rek nekk na presque 20 millions par appartement étudiants yi ba ba Ziguinchor ba Saint-Louis Bambay, partout am nañu ay appartement pour étudiants yi beneen bi boo ñëwee aussi ba léegi ci wàllu bourse yi fu mu nekk nii ñu ngi fay juróom benn fukki million ak juróom million pour xale yi moo pour ci tàggatu ci fàllu formation donc ci éducation et formation moom côté boobu ñu ngi def lépp pour que xalé Morlan manam CI mu ne garde di ba université dañ leen di top di leen ki ñu ngi jublu sax ci jënd ay terrain ay Saint-Louis ay Bambey pour tabaxal leen carrément ay immeuble loolu moy perspective yi bo ñëwee ci sport duñu nekk ni defé na ni 100 morna mu ngi ni président ba ngi ni ñu ngi leen di gunge chaque année dañuy jox subvention pour gunge mbër benen bi moy ci walu sport bi amna ñu ASC Morlan chaque année dañuy génne fukki millions pour jàppale suñu équipe communale ci walu vraiment pour mu jungunge ko benen bi moy coupe du maire dañ koy def subvention 4 millions wala 5 millions nawetaan yi aussi noonu ci wàllu sport tamit on met beaucoup d'argent argent def am ba am équipe athlétisme Mor la am équipe athlétisme benen bi moy ñu ngi initier manam ñu ngi vraiment initier basket ci biir commune bi ñu ngi tabax terrain basket à à Palu ñu ngi waajal Ngiig Fall donc dañu bëgg. doomu Morna ci wàllu sport bëgg nañu ay euh, ay ay Bombardier ay Modou loo bëgg nañu ko bëgg nañu si ay Sadio maane waaye bëgg nañu aussi ay góor gi Sidiye loolu mën na nekk mais dañuy encourager xale yi di des sport mais li ci des léegi nekk ci xale yi la il faut que ku boo di sport léegi dangay ngay sérieux ñi ma lim noonu ku ci sérieux doo àgg foofu il faut que le sport bi foog da nga war a am sa discipline si sa biir yaram discipline de comportement bien le comportement boko amé amna am ni mën nga dem fa sori ci walu aada ak tamit on a vraiment ñu ngi développer, amna ñu orchestre communal am nañu euh, troupe communal, yooyu yëpp orchestre communal bi amna équipement yep amna sonorisation bi gën ci sonorisation bi Sénégal tay donc pour pour lo paala nii ñu ngi djublu ci vraiment fexé jeune Morlan am am métier je pense lolu métier bi motax sax ñu créer benn centre de formation professionnelle à Morlan centre de formation professeur boobu xale yi ñu ngi jàng ñaw ñu ngi jàng métier en tout cas foofu pour que vraiment ku réussirul ci école bi rek nga mën a am métier vraiment loolu côté boobu la ñuy mettre surtout suñu accent bi parce que xam nañu ni beneen bi tamit mooy wàllu emploi te créé nañu fii ay projet par exemple boo jëlee qualité fruit Sénégal rek presque am na lu mat ñaari junniy emploi ñu xam ni ñu ngi liggéey foofu ñun ñi liggéey foofu parce que dañuy jógee Rufisque ba Ngaay Mexe ba Xombol Thiès. ties bi ñu bari dañu jóge fofu di liggéey ci entreprise yooyu am nañ beneen entreprise Grilly Claris am nañu aussi Aneda am nañu ay fer quatre ferme am na bu nekk Palu tamit yooyu yépp de tax délé sax damay tooñ réer yi bu njëkk horaire bi doon ñëw dana doon indi retour faga daga waaye tey am nañu ñetti fuuru mbuur donc xale yi mornaa yi tey xamatuñu luy retour mburu bees lañuy ndikkee donc loolu dafa wane ni maanaam économie morna mu ngi jëm kanam te loolu dañoo bëgg aussi que doomu morna toog morna bañ a dem Dakar waxuma dem France mais dañu bëggoon mu teeg toog Morna njëriñoo Morna jàngee Morna loolu moom mooy suñu euh, loo xam ni moom moom la ñuy def pour que Morna doomu Morna am confiance ci Morna toog Morna parce que bu njëkk ñëpp dañoo foogoon nii pour dund da ngay nekk Dakar alors que pour ñun dakaar dañ ko defar suñu defaree Morna waaw Morna toog fii je pense loolu loolu mooy kii bi tey doomu Morna tey ndox courant loolu nag dañuy gërëm bu baax président de la République vraiment ak gouvernement am. ndax moom bu muy ñëw fii ñeenti dëkk en 2012 il y avait que 4 villages électrifiés mën naa wax ni dëkk yi yëpp électrifié nañ ko sof ñaar u ñett mais benn bi surtout wala ñaar yi xam ni peut-être ñu ngi ñaan président mu jàpp ci mooy Colobane Colobane tàngoor dëkku Serigne Alpha Thiombane la dañoo bëgg vraiment nguur gi jàppale ñu foofu courant ñëw am na beneen boo xam ne dañ ko tëb mooy palu yugo dañ ko tëb vraiment bu ñu nguur gi mënee jàppale euh, ñu boole ci dëkku yoo xam ni mel ni ci. Euh, Kër Assane Mour yi curux dëkk yooyu yëpp defe naa ni président bu ñu mënee jàppale ci courant dina mais ndox moom wàllu ndox vraiment ñu ngi gërëm bu baax a baax euh, ministre Serigne Mbaye Thiam vraiment jàppale nañ bu baax ndax bu njëkk mor naa amoon na jafe-jafe ndox bu tar mais fu mu nekk nii jafe-jafe ndox yi bon ay quelques postes la mais postes yooyu ñu ngi ñaan aussi vraiment monsieur le ministre bu ñu mën a gën a jàppale ci wàllu ndox mi dina baax trop vraiment en tout cas maa ngi gërëmaat encore une fois Sidi vraiment euh, jàmbaar la ku mët a jàppale la maa ngi ñaan sama yeneen maire yi aussi voilà ñu gën a jàppale sii Sidi vraiment koo xam ne mën na ko surtout waa Thiès ñun waa Thiès Thiès su ma waxee Thiès rek mooy département wan mbuur ak Thiès ñun yëpp nañu jàpp bokk jàpp sii di Diakhaté mu xam ni mu ngi def promotion làmb biir région de Thiès biir euh, Sénégal. kii maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam man Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail. te Maguette seen ne woon ma léegi nag nekkatoo promoteur capital du rail donc léegi promoteur vraiment régional nga donc monsieur Maguette seen ma koy gërëmaat di ko santaat ci journée bu mag bi nga xam ni def nañ ko bërki démb rek ci Mbaling en sa qualité de de directeur général du COUD ba pare nekk aussi maire de la commune de Malicounda monsieur Maguette Sène ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm population bi yëpp. tey jii nag ñu daje fii ci commune bi nga xam ne mooy commune suma xarit di di dëkk boo xam ne ay mbokk ay xarit laa fi am. ay àndandoo ay dëkkandoo parce que moom mooy commune de Morola commune de Morola ku nekk xam na ñun suñu diggante ak Yves Lamine Ciss Yves boo ko fekkee biir Thiès da ngay defe ni fa la juddoo fa la dëkk fa la ndax ñëpp ko adopté def ko seen frère def ko seen mbokk def ko seen xarit loolu nag ci ci ci ci jikkoom la ci yaram ci baaxam macha allah ci teeyam aussi ba pare nekk nit koo xam ne nit ku jigee population de Morola la lépp lu mu am suba ba ngoon population bi nek ci ci ci ci jamm ak salam rek moko ko gënal donc monsieur le maire Yves Lamine Ciss honorable lay wax sax parce que ku nekk xam na ni barki démb rek lañ ko too takkal ndombo yi nga xam ne mooy ndombo HCCT donc loolu ñu ci gërëm di sant ki nga xam ne mooy son excellence le président de la République monsieur Macky Sall di ci gërëm soxna si nga xam ne mooy sa prési la présidente donc Aminata Mbengue Ndiaye donc di ki nga xam ne moom mooy euh, jiite lépp lu jëm ci socialiste yi te ku nekk xam ne Yves Lamine Ciss donc moom ku nekk xam na ni socialiste bu mag la. ak ki nga xam ne mooy building caatu limousine dama koy féliciter pourquoi ma koy félicité parce que bi nga xamé ni euh dañuy teug combat yi at mu jot donc ñu jël bële yoon quart de finale la ñu jëkk jël xalé bi euh, béré won ci euh, te dëkk fi ci euh, commune Morola ba mujj ñu jël dem ñu dem ba demi finale tay nak ñu ni nak comme dañuy dem nak ci grand combat bi dañuy jël ci xalé pourquoi parce que xalé yi dañu mag ba paré machallah ñom Arlette donc ñom Moussa ak képp ko xam tay yaangi fi ci biir commune bi donc sous la direction du maire Yves Lamine Ciss donc ñu jappalé leen ba xalé yi génné de de grand champion actuellement donc may wax ni tay ji caatu limousine mom mo xol ba ni ma siidi ma ni ko ah, mu building mi ma dégg ci presse bi muy wax suba ak ngone goudi ak bëccëg mbeur moma ma mënti jox Cees rek jox ma building moma ko gënal moo tax keroog ba ñuy def face à face bu njëkk ba à Thiès building di wax yow dooyoma lañ ci defoon ma ne ko building defal attention parce que kii di caatu limousine def na ay preuve à travers Thiès indi naa ko fii mu daan fi ku ne dakaar moom waxaale wu ma ko ci xam na ko Iba Mar Diop xam na ko ba loolu moo waral su fekkee woolu na boppam te écurie bi nga xam ne mi ngi fay entraîner aussi guddi ak bëccëg moom du tricher ba tax mu ni tey nañ nañ ma jox building building di un champion confirmé de Thiès ah yaakaar naa ne xale bi pare na man la wax ju bari ji jaru ko de na nga bàyyi xel ci xale bi daal wax naa la ko mooy caatu limousine kon Yves ma lay wax ni la bu avez un grand champion mu war a bëre nag le grand combat quand bis boobu donc may wax ni caatu limousine kon sa te d'ailleurs wax na sax building lu am solo dañu ko gis nga drapeau bii nga gis ni moom la ñuy war a bëree te Sidi Diakhaté nu ngu koo tàllal fii nii da koy yóbbu ba ci maire bi ba wan ko ko ba pare bis booba naa loon ne drapeau bi maa koy indilaatal maire bi ba présenté ko àndaat ak ay athlètes yooyu yóbbuwaat ko présenté ko ndax nee na moom mooy gagné drapeau bi indilaatal la ko. donc ah mi ngi nii sax d'ailleurs bi may au moment où je parle caatu lu mu donc ma lay wax ni la caatu lu mu dama doon wax léegi la nga waxoon keroog nee nga woon monsieur le maire Yves drapeau bii nga xam ni moom la ñuy war a bëre muy sa drapeau nga ni building baye boo léegi rek loo ciy wax nga wax ko ndax drapeau bi dama koy yóbbuwaat Morola ga mu dëkk sax d'ailleurs C'est nga wax de veux di ko ci kanam le maire donc je xamal ni la ngi parce que je naa yow ba mu neex la nga man champion laa bëgg a parce que man champion laa moo tax ma bëgg ak ki nga xam ne building parce que ay bay building di wax aussi da ni ko yow ci wax ci ngay nga plateau la ni la man champion parce que un may gërëm la presse parce que fépp foo xam ne maa nga fa ak yéen yéen ak may jàppale ci liggéey bi ba tey jii sii di jaxate di man lii donc monsieur le maire Ibrahima Lamine Ciss maa ngi lay gërëmaat di la santaat parce que lépp lu président de la santaane woon pour ñu def ko ci développement wu bi muy développe li koy jàppale ci ci politique de jeunesse am yaa ngi ci mooy lii nga xam ni mooy jàng bi mooy li nga xam ne mooy santé bi mais rawatina nag li nga xam ne mooy sport bi ak culture bi tey jii ku xam ku xool tey jii li nga xam ne créé ko fii à Morola def fi un orchestre communal def fi benn troupe boo xam ni troupe communal la encore mu nekk ci wàllu ay euh, théâtre ak folklore ak woy ak lu ne donc loolu ba pare teg fi sonorisation boo xam ne bu am solo la ba pare di jàppale mbër yi tey ba fépp fu ñu jëm nga def fi benn cent pour cent Morola képp ku ciy bëree nga def ci say moyen ba mu mat sëkk a ah, lool rek la son excellence le président bëgg loolu moo waral tey jii c'est ce qui nga ni cee fii amul benn xale presque boo xam ne day taxawal ndax ñëpp yaa ngi def li nga ci man donc pour mën leen a jàppale ba ñu man di jàngi suba ak ngoon wala ñu ne ci ci liggéey bi di jàngi métier donc ñu ngi lay gërëmaat di la santaat te di la wax daal incha allah na xam ni li ñu lay ñaan. mooy saa woo daan ñëw l'ensemble des villages yi nga xam ne ñoom ñoo constitué pour nekk fii ci sa commune kenn daawul des ginnaaw daanaa gis caq peme yi daanaa gis sëgri sër yi nga xam ne moom lañ daan di ko di ko gàccoo gis gis troupe yi gis lépp te man damaa gëm luy folklore rawatina folklore séeréer bi nekk ci Morolan gi donc ma lay ñaan monsieur le président à partir d'aujourd'hui na nga wax sa équipe bi nga xam ne ñoo lay jàppale pour que ñu dugg dëkk yëpp pour que ñëpp mën a jóg kaar yi indi leen ba ñu ñëw vraiment def une fête de la jeunesse maa euh, vraiment ci turu tey jii le parrain boo demee nga ni Youssou Ndour vraiment Yves Lamine Ciss honorable i Lamine Ciss maire de la commune de Morolan mi ngi koy gërëmaat di ko santaat parce que chaque fois bu ñu soxla TFM ñëw na jàpp ci liggéey bi retransmettre gala euh, en direct donc sur la télévision à travers le monde entier fu ni toog diko ko kon nak may wax ni bo demee nga ni ko Youssou Ndour nga wax ko aussi képp ko xam ne tey jii kilifa yi ne ci télé bi rawati na euh, dang koy tàmbalee ci Birane wax ci wax ak Ndiaga waxal le directeur des programmes bi nga xam aussi mom moy tey jii Bouba Ndour ak képp ku fa nekk rek la technicien et vigile ak ñep nga wax leen que ni vraiment le maire l'honorable Yves Lamine Ciss gërëm na leen sant la te la population de Morola yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'extérieur aussi ñu ngi lay gërëm di la sant te li tax ñu lay gërëm di la sant permettre ngeen leen ba ñuy mën a seetaan lamb ji à travers le monde entier kon monsieur le maire vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax mbër yi nag yéen ñëpp dégg ngeen li nga xam ne moom la parrain bi wax li mu ñaan daal mooy ñu bëre ci jàmm ak sportivité may gërëm na képp koo xam ne yaa ngi jàppale Sidi Diakhaté donc ci làmbam bi muy def rawatina suma sponsor officiel la Sococim Industrie may gërëm le PDG monsieur Yougo Sow di gërëm euh, njabootam di gërëm sama jigéen Adja Nafi saw mais di gërëm képp ko xam ne mi ngi nek ci Sococim industrie di len wax ni vraiment su Sidi Diakhaté parvenir ba mën def à travers les régions du Sénégal muy def ay lamb na nga xamni ni c'est parce que yéen ngi ñuy jàppale guddi ak bëccëg suba ngoon monsieur yugo Sow maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm aussi ki nga xamni mom moy le PDG aussi de Ndoukoumane Industrie makoy gërëm di wax muy donc mom di ko di ko ñaanal yalla donc di wax Ndoukoumane construction maa ngi koy gërëmaat di ko sant

parce que vraiment aussi nous depuis x années plus de 6 ans donc Madar ak Mera di à travers le Sénégal donc nous défendons toutes les régions du Sénégal kon wax le PDG Moustapha nga aussi déjà Sidi Diakhaté kontaan na vraiment équipe bi nek fi ci à Thiès ak dans les régions fuñ ci mëna dem des ngi téru té ñi ngi def liguey bu baaxa baaxa baaxa baax diko féliciter félicité aussi ci biir màkk yi nga xamni ne qui jox na tamit ñi nga xamni ñom ñoy jaay kat yi donc lolu mu nek lu sedd suñu xol donc HD Industrie Mara Sidi Diakhaté ngi len di len may la prévoyance assurance sous la direction euh, de monsieur Mamour Thiaw Mamour Thiaw le PDG ma ngi lay gërëm ma di len sant donc administrateur bu mak la nit ko bax la prévoyance assurance du assurance bu wóor di wax nit ñi képp ko am auto aussi na ngay penser à la prévoyance assurance ñom nit ño xamni ne la nit ñu bax lañu di wax ni aussi ma ngi gërëm suma xarit Moustapha Kandji mu euh, entreprise TDR muy kenn ci ñun n'est suñu doomu ndey nekkon tamit promoteur de lutte comme ñun mais tourné waat di jàppale làmb ak bëccëg suba angone donc Kandji candidat ngi la sant bu baax monsieur le euh, directeur général de euh, CGTS nous wax Sidi Ndaw Sidi Ndaw di gërëm donc vraiment sa structure bobu société bu mag bobu maa ngi koy gërëm diko ko sant bu baax a baax a di la wax ni dal monsieur Ndao vraiment maa ngi lay gërëmaat di la santaat di la ñaanal yalla mu yok xewal gi yok sutura ci di gërëm tamit ki nga xamni aussi mom moy Papis Dia mu yor intercontinental de négoce ma koy gërëm bu baax a baax di wax mbokk yi bu len di faté nak toujours bu ngeen nekké bu ngeen nekké ak Mera

à côté de notre cher frère monsieur Yves Lamine 6 Yves Lamine Laiwa, donc maire de la commune de Morola nous grand diko santat bu baax diko wax ne vraiment tay ji am nga fi lu mat ay trois lutteurs yo ci commune bi la bok ñom ñepp ñi ngi fi a bëre ci sa drapeau bi loolu nek na événement un grand événement bu am solo la lamb bu ci démarrer à partir de 17 h pour télévision bi man la ko jox à temps réel ba nga muy goudi ñu bëre combat ci ci ci ci ci ak donc mbokk yi ma ngi di di leen santaat di ñaan yàlla mu yokk xeewal yi yokk sutura si di gërëm Baye Laye Fall moom mi nga xam ne moom moo yor donc ETT moom it di ko ñaanal yàlla muy euh, koo xam ni promoteur immobilier bu mag la bàyyi laay faal di suma xarit di suma mbokk di koo xam ni kenn la ci euh, Adja Yacine Lo donc di nuyu doom Yacine Lo muy bu sa jaxate ca Tëngéej donc may gërëm bàyyi laay faal bu baax a baax a baax baax ci li nga xam ni ñu ngi ñu koy defal suba ak ngoon guddi ak bëccëg ci liggéey bi ñu def kon nag mbokk yi yaakaar naa dañuy waaj a jublu nag ci liggéey Pam Mbaye defe naa noonu la dañuy waaj jublu ci liggéey bi Pape Mbaye donc à travers yow ñoom Kara ñoom Modou faal ñi nga xam ne ñoom ñëpp ci Sidi Diakhaté production lañ bokk donc maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax suba ak ngoon gu jéeg bëccëg set maa ngi lay gërëm di la sant mais di gërëm suñu xarit ab euh, Ablaye Dieye mu nekk PDG donc AUBD, di kenn ci ñun di suñu xarit di jàppale jeunesse bu baax a baax monsieur Abdoulaye Dieye donc di doomi Bayal Khoudia Badiane à chaque fois que je parle de Bayal Khoudia Badiane sama xel day dem ci suma rak suma jarbaat suma xarit muy set donc Abdoulaye Dieye ñoo ngi koy gërëm di ko sant di wax président de la République ñu lay ñaan nga renforcer encore davantage aussi euh, le bu baax a baax pour que vraiment muy gën a mën a jàppale xale excellence président de la République le maire terminé dal mooy di la wax ni la ñu lay di la sant mais dila la wax ni n'ak ki di le maire Yves Lamine Ciss lépp loo ko defaloon yokatal ñuko moyen yoo xam ne bu ko projet yi joggé indi ko fi tay ji ci dëkk bi défal ñuko pour que dëkk bi gëna natat parce que Yves mom bala muy kontaan rek dëkkam bi nekk ci jamm mu nat bu baaxa baaxa baax donc malay wax ni n'ak mom en sa qualité de maire donc ma ñaan aussi nga renforcer ko donc li nga xam aussi moy moyen yu mëna a ba mëna a xalé yi bo xolé partout fépp fo xam université am fi Sénégal rek fexé na ba jëlal fa xalé yi fu ñu mën dëkk wala mu def fa moyen yo xam xalé yi dina ñek à l'aise donc bu devez bay penser à une chose acheter des terrains construire leur ci fi nga faut fa la université yi nekk à travers le Sénégal pour que la population de de de de Morola soit dans de bonnes conditions que c'est un grand maire qui qui pense à ça donc monsieur l'honorable soyez vraiment, euh, euh, je serai votre interprète auprès de, la population sénégalaise pour leur dire combien vous êtes vraiment un grand monsieur. Donc, monsieur Yves Lamine 6, nous transmettra vraiment suñu remerciement. Et quand je transmets mes remerciements, c'est toute la population de Thiès, c'est la population sénégalaise, parce qu'à travers la lutte, moi, je suis au soir numéro un à travers le Sénégal. Donc, monsieur le maire, honorable, je ne vais pas être loin parce que je suis des filles léegi jàkkaarloo ñu présenté waat de sa drapeau bi ñu war a bëree ku gagné ñu jox ko ko bu soobee yàlla jërëjëf merci beaucoup jëre ngeen jëf mbokk yi ñu doon suivre gis ngeen ñi ngi woon fii ci Morolan présentation drapeau If le 6 bii di quatrième édition bi mu war a amee fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma koddu yemook samedi le 6 muy bis bu am solo ngeen gis combat am solo yi nga xam ne mi ngi ci biir grand combat bi dox ci diggante building bu muusante di ndaanaan di champion bu jógee Thiès gépp jóg topp ci ginnaaw waaye kan lañ ko booleel muy caatu limousine di xale boo xam ni mën nañ ni fii lay waree muy Morolan di xale boo xam ne champion la ndaanaan li ngeen gis sorti yu am solo yi nga xam ne def na ko fële nga xam ne mooy arène nationale parce que quatre grands combats muy ndaanaan di bërekat mais ñu tudde ko koo xam ni mën nañ ni zone bi yëpp dañ koy sagoo muy iflamisis di koo xam ne dafa jàppale jeunesse Morolan bi yëpp ak li ko wër ñu gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne daf koy taxaw li ñuy wax chaque jour dañuy gis seen i bis te ca yeneen zone la ñuy dëkk muy yaakaar naa bu ñu la falee li soxla nit ñi mooy nga taxaw ci soxla nit ñi moom nag taxawaayam rafet na trop jëwam rafet na trop ñu gis Sidi Diakhaté bii di quatrième édition bi mu ko koy tuddee ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ñaan ñun ñëpp ñu yegg ci ak jàmm muy la siis fële nga xam ne mooy Thiès hippodrome Ndiaw ma koddu jërë ngeen jëf.